ki ñu dem seeti mooy Omar Pène lu tax ñu woo Omar Pène Omar Pène dafa nekk koo xam ne si la nekk na nit koo xam ne ni ab ni vision nekkee ci Sénégal noonu lay rawee ci Afrique Omar pen woy na fa Beyrouth Omar Pène woy na xiif Omar Pène woy na Soweto Omar Pène woy na chômeur Omar Pène woy na lépp loo xam ne thème d'actualité la Omar Pène yàgg na woy ay thèmes yoo xam ne wax dëgg yàlla bu Sénégal nekkee ci yenn situation Omar Pène génn dina jaaxal ñëpp lu tax Omar pen génn dañu seeti Omar Pène génn na am na benn message muy jàlle Omar Pène la super jamono buy lancer message ñu seeti Omar Pène ak le super jamono. merci bon maa ngi nuyu ñëpp di gërëm vraiment euh, di kontaan ci waa Sénégal euh, man nag Omar Pène euh, bu weeso way damay lancer ay message souvent si samay way parce que way dafa am solo di way loo xam ne Sénégal xam nañ ne Omar Pène way na Soweto way naa Soweto ak ñoom Mayga ak ñoom Lapa Diagne <laughs> ñoom Dembel Diop vraiment Ismaïlo ak ndem si yàlla yi suñu xarit suñu doomu nday Moussa Ngom yal ko yàlla yërëm te xare ko bon euh, dama gis ne euh, ñaari euh, ñaari naari yi nga xam ne ñoo jugee bitim réew président Macky Sall indi leen je pense que ne Sénégal dëkku teranga la ok dëkku teranga la donc bu ñu gisee ne wax dëgg yàlla ñoom ils ont choisi pour ñëw Sénégal nekk fi jàmm parce que suñu digganteeg Libye dëgg la dëkk la yoo xam ne ñu ñëpp Afrique li ma ci yàgg wax mooy ñu jéem a boole suñu doole taxawal Afrique bu dëgër. way naa ko way naa ko way naa ko way naa ko way naa ko ci sama album bu bu bu tuddam Soweto ak Beyrouth ñi ñaa ngi fay de atelier mu jeex xeex ba boobu maa ci ciy woote message euh, pour euh, Yasser Arafat euh, ak gars yi ñu waxtaan waa Israël donc Sénégal actuellement man ni ma ko jàngee orpen dama na ñun musiciens yi Youssou Ndour d'accord il a choisi le chemin de def politique mais ñun tamit ñu ngi def politique musicale boo xam ne dañuy lancer un message jàmm paix Soweto Beyrouth Euh, chômeur yu bëri way nañ ko foofu diggante mbëggeel ak nit ak diggante relation dafa am solo euh, moo tax may wax ne na jeunesse bi daal parce que bi may way chômeur boobu yàgg na gënoon a gënoon a gënoon a métti euh, gënoon a métti bon gouvernement bu ñëw yaa ngi teg ay jéego pour affaire yi mën a sotti waaye ñun musiciens yi tamit je pense que ne dafa jot pour ñu ñu xaw a gëm suñu bopp tuuti mooy fexe ba am place fi nga xam ne fa ñu jëlee décision yi Euh, parce que tamit euh, bu ñu bàyyee gouvernants yi ak politique yi euh, réew mi te artistes yi dugguñu ci ëllëg ñun mun a ñàkk ay ñoo xam ne dinañ wax ne yéen yéen a ko fekke woon yéen a ko a ko fekkoon bon wax wax naa ko Youssou def nañu maa di duyoo ma ne ëllëg si biir ëllëg si biir ëllëg si biir boobu mooy maanaam li nga xam ne moom ngay gis ëllëg xale yi bu ñu màggee ñu ne waaw ñii ñoom xanaa ñoom bi ñuy lii di am ñoom nekk ñu fi moo tax Youssou je le comprends Euh, il a choisi son chemin pour def politique waaye ñun euh, comme que ñun public yi dañu gën a ñeme quoi <laughs> xam nga xam nga pen moom wax dëgg yàlla euh, vraiment pour may wax sax ci biir ay nit bu bu dafa jafe waaw banna moo tax ma ñëw parce que banna jigéen la bu yàgg ak man ma way ko ne banna mooy sama lumière mooy sama lampe gis naa lu ne da ngay way jigéen ñëw xiicu def rouge à lèvres yaa ngi dégg euh, charme la def seen rouge à lèvres yooyu war a sax des ñu ñu pàccal ngeen baal ma <laughs> des ñu pàccal sax mais xam da ngay muñ quoi parce que xam nga bana euh, bana bana bana daf ñaar moo tax ma bëgg ko bana daf ma jàppee kon frère bu mu bokkal deuxièmement mu may xoolee bëtu kilifa euh, bu ko yar. ñetteel bi bànn dafa mën a togg dëxinu biiru xar mais bànn mais mais je me rappelle benn jour Ismaïla daf ma woo ne ma mais mais pen ma ne ko waaw mu ne ma mais gars dañu bëgg ñëw ay sëkk tey ma ne ko non xaar la ma xar ma ne ko la ma rey xar après ci la ma bon woo na ma moom euh, démb rek yàpp la reeree xam nga con moom yàpp rek la bëgg mu ne ma démb yàpp la reeree moom bu bu sonal lu gën a tooy lay bëgg bànn force wax ci dama bu leen wax dara mais keroog bi bànn toggee ceeb euh, dëxinu biiru xar bël jël laxas bi ak génnu xar bi ñambas ko jël bopp bi ak làmmin bi def ko mbëlee waaye ceebu mbëlee euh, dëxinu mbëlee làmmiñu xar bi la génn ci boppam teg ko nële wat karaw gi wat cuugalu xar bi euh, bàyyi ci tuuti yuur non bànn du moromu gaa yi moo tax man bi ma demee bon ba yàgg ak moom lool lool lool damay ñaan ñu ñaanal moom mag barna suñu ànd gën a yàgg parce que tey bu ma demee ba dëgër ba taxaw yàlla ak la parce que nekkoon na benn moment mu métti lool parce que artiste pour sëy moom dafa metti dangay ku ñëpp bëgg mu ëlbatu ku ne yow rek la wax dëgg yàlla loolu yàlla bu ko may jigéen bu ko mën a muñ rek macha allah Euh, dafa am ko bind benn livre ci man wax sama jaar-jaar mu touché ma parce que ku bëgg a xam Omar Pène dëgg da dem nga jënd livre boobu di nga ma mën a xam te jot na nu ñuy xamee la Dior xamee Albouri xamee ko Senghor Abdou Diouf Macky Sall ñu xamee ko Omar Pène Youssou Ndour ak ñeneen. Ah, parce que tamit ëllëg xale yi bëgg def musique war na kii fii la jaar ba réussir. ñu jàng yoon boobu pour réussir kii fii la jaaroon ba écheck ñu éviter loolu ba bañ a échec. moo tax ma woyu bana boobu dama koy dellowaat di ko delloo njukkal bana baana njaay mi sa njaay njaay génne génne njaay baana oui ni baana oui baana njaay mi sa njaay njaay génne génne njaay bana barata xiin man dem na dem naa ba xam ni ba xool li ma xool jigéen mënu ma jaay taar ku dul bànna naa ko facal gis naa ko rouge gis naa jigéen bu xees gis naa jinne gis naa rab waaye dem naa dem naa dem na dem na dem naa dem na di dem di dem di dem oui oui oui oui oui baana oui bana ma def ma def ko fii ñu defante fii bana laa xam man bana laa miin bu ma toggalee dëxin ba def ci laxas laminu xar ak xar kon baana wi wi baana yaay mi dem na dem dem na ba xam ni bana mu mun a togg bana di togg ay dëkk lu bari du ko togg bana di togg jabaru Ismaïla Lo munu ko yaay waaw soxna Thione Seck munu ko yaay Baba Maal moom amagul oui bana du moromu Kumba Gawlo mi oui bana du moromu Viviane oui bana yaa jëkk yaa xees yaa taru mën a togg dëxin ba bëgg oui oui oui oui bana ni njaay wuy baax na wuy baax na mën a togg dëxin ak cere ak laax yow li ngay togg ay dëkkul bari mënu ko Ismaïla Lo jabar ji mënu ko wuy kon baax na wuy baax na wuy